la mooy way ndax baat bu neex bi yaa ma ko may abillaay waroon na ma mën a way way koor ba way la man lii ma bëgg a way rekaan bi moo jugati way koor la bindaat fi way fi sunu sang bi kon de bàyyi way xam naa ni ndax baat bu neex bi yaa ko may billaay waroon na ma mën way ba way la man lii ma bëgg a way nderekaan bi moo jugati way ko war na la bindaat fi way fi sunu sang bi kon de baay way moy ko war na ndax baat bu neex bi yaa ma wa barakaatu nabi lislaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bañ sante yàlla juleen senent bi ñi ngi sant suñu ñaari waajur tey ñaanal réew mi jàmm kilifa diine yeeg kilifa aada ñu leen ñaanal jàmm ñu nekk sa hôpital ba suñu a def leen fay delloo ñu euh, nga xam ne mooy jotaay werekaane duñ koy defee euh, chaque àjjuma dinañ dem kër këru kër diine yépp indil leen fa ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ay tàggkatu yonent bi lañ waaye ay waxtaankat di boroom xam ñu fas yéene leen a waxtaana su yonent bi sallallahu alayhi wa tey day spécial ndax am na góor goo xam ne dañ ko war a waxtaanee te xam naa si kanam tuuti bëgg naa euh, Sénégal découvrir mooy gan góor euh, te nañ si ànd ak waxtaankat bu mag incha allah rabi muy sëñ Souleymane yëpp euh, waaye tamit feggoog doomam. muy alaaji siraaj siraaj rek ñu ngi koy moom ñu ngi koy siyaare bu baax a baax baax baax laataa loolu nag may ñëw si nabiyen yi ñu béggal ñu si yonent bi sallallahu alayhi wa ñu doog a ñëw si waxtaan wi am solo bi nga xam ne fas yéene nañ koo waxtaanee cheikh bi si Ousmane ay ca فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توصلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا حي يا الله ربنا وتوصلنا بخير البرية فيا حي يا حيوم يا الله ربنا, ربنا إليك توصلنا بخير البرية يا حي يا قيوم بريتي فلا بد من شكوى إلى الله كربتي فما لي غير الله جابر كسرتي وغرئي باب الغير يا رب لم يفت لذاك صرفنا وبابك وجهتي fa antal karimu yow yàlla fal karimu man intaja ila baabihi ya man ala kulli ni'mati fa antal alimu ya saburu liman jafa ana abdun ji'tu baadiya dillati falamma bada li annahu laysa mahrabun siwaa baabika alxaami madattu yudayati ilayka bi duufin wa ibtixaarin wa faaxatin li taxfira li yaa rabbi min kulli dallati fa bayna yaday mawlaaya maa diltu waaqifan zalilan xaqiran mustaxiisan li shiddati fa anta alalimu ya saburu liman jafa أنا عبد جئت باديتي التي فأنت الإله يا مجيب لمن ضحى داودك يا ستار فاستر مهيبتي فيا ربنا اصرف إليك قواطري بجاه النبي برية رحمتي ويا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توصلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا ربنا إليك وصلنا بخير البرية صليا يا إلهي وجضيا أبدا عنا محمدا المحطر في القدم زد وصليا يا إلهي وجهي أبدا أن محمدا المعطر في القدم وهو الأنبياء ووسطى سلك نظمهم زد وصليا يا إلهي وجدينا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم مصطفى محمد

taara fi la sopp yonent defal di summal muqaffi fi bishadil fa'i xat babatu wa kasriha wa sukunil yaa bi kutubi Seydil Haaji Maalik na wa salliyan yaa ilaahi محمدنا المختار في الكون ولا أقيب المقتفي أسى شر من سبقوا من أنبيائي وروس لله كل يمين وصلي يا إلهي تعرف شيخ سيد الحاج مالك ذاد المواهب وأسماء أنواع الرقيض مصطفى وسليا يا إلهي وجزيا عبدا متقليا محمد أي مرحنا المحطار في الله محمد البشرى صلي صليا يا إله وأوحي وجزيا أي نبي أبدا يودك لي أن محمد المعتار في القدم نبي eh, tijjee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neex na la wax dëgg yàlla yàlla na baat bi gën a wér ñu la koy ñaanal baax baax Euh, di jaale waa Touba euh, suñu génn kilifa suñu xarit la woon suñu frère la woon di suñu lépp di suñu féete muy Serigne Saliou Mbacke Abdou nekk surtout Serigne fàllu Mbacke euh, wax dëgg yàlla démb ba ñu déggee nakar wi si guddi gi tiis nañu lool ñu ngi lay ñaanal sa ndaw nga yeggalee ko sa àjjana ñu ngi koy ñaanal si barki Serigne Fallou sa maam mu teeru la bu baax a baax baax ñu ngi koy jaale famille bi yëpp ñoom Serigne Saliou Mbacke Adama. ñoom sëñ Moutala ñoom seex Fallou mi nga xam ne mooy rakkam Cheikh Fallou ñu ngi lay masa bu baax euh, suñu xarit la kooku mënuñoo sori si moom ñu ngi koy ñaanal wax dëgg yàlla yàlla na yeggalee ndawam àjjana dañuy ñëw rek rapidement ndax xam naa suñu fa taxawee dina xaw a doy waa si ñun euh, muy euh, vie et œuvre de Cheikh Mouhamadou Souleymane sàll góor góor googu nga xam ne wax naa leen tey sànq si biir waxtaan wi nee naa leen bëgg naa Sénégal découvrir mooy kan jàngaleem li mu def si àddina ak ñi nga xam ni mag ñu baax yi la àndaloon si liggéey bi ba tax na damay ànd ak oustaz rapidement mu duggoo ñu góor gi oustaz kan mooy eh, Thierno. bismillahi lima nafaa walhamdulillahi lima fuila lana yaa himmata sayqix duri lana bi haza almahdari faltaati fi bi nazratin biha watari atakallamu maakum an madadi mawlana sayidi ahmad tijaani mu mel ni asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu xaaji mustaf di nuyu waa kër gi yëpp nuyu 7TV ak mbooleem téléspectateurs yi koy topp fu ñu mën a nekk waaye di nuyu sang yi toog couleur ngoon gi di ci jiital xadrata cheikh Cherno Sirajuddin sàll tabarakallahu di boroom xam-xam di aalimul allaama di jàngalekat waaye laa xarwa ndax bu ñu duggee ci waxtaan bi euh, wëy juram moo nekk ki ñu war a tuuti tey ñu am lu ñu génnee ci moom mhm. waaye laata loolu ñu nuyu Cherno Ahmed Boyna ji Sall fa tabaarakallaahu di magam eh, di suñu lépp di suñu soppe di sëriñ di xarit di wétal fa tabaarakallaahu moom itam di dimbali jaamu yàlla yi ci bépp wàll ñu di ko ziyaara di ko jox cër yi mu am yépp ci tariqa bi noonu la ñuy nuyoo nag suñu mag di xalifa ba Ceerno tabaarakallaahu alfa nga xam ni tabaarakallaahu moom moo ne ci bopp bi di ko jox cër yi mu am yépp di ko ziyaara nuyu Cheikh na Omar ñoom ak mbooleem njabootu euh, Seyid Thierno Mamadou Souleymane Sall ñu ngi bokk ak jotaay bi tey Seydina Ousmane ah di suñu soppee bopp fa tabarakallahu li nga tijjee ci yonent bi waaye nga tijjee ko ci tas sa tawasulu maam Cheikh Alxaaji Malik boobu nga xam ni booba mu ngi fëgg rek buntu yàlla bi yàlla na yàlla may ñu ñu muurloo ko ñu yàlla def ñu njaboot yi Maulana Seydi Ahmad Tidiane ñu ngi nuyu sunu soppe bopp tey sunu xarit ah, Seydi Ahmad Fall Seydi Ahmad ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara ah, ah, sëñ safa ñu ziyaar la bu baax ki ñu fi tax daje Thierno Mamadou Souleymane bu fekkee dañu ko laajte ñu bëgg tontu li ñu jëlee ci borom xam-xam yi ak ñi dundandoo woon ak moom te muy seede yu maandu nekk al masadira mawsuqa juge fa mu war jóge ci dëgg-dëgg bu ñuy jàngale Thierno Moule Souleymane Sall dañ naan umdatun min imaadi diin kennu la woon ci kennu yittee diine diine nag mooy lan ak nan la nit di nekkee kennu bu tee diine mhm. te Thierno Souleymane Sall Mamadou Souleymane Sall nekkoon kenu yitee diine mu bokkoon ci ndax niveau yi mu waroon am ci wàllu ilm ci wàllu dirayat ci wàllu xam-xam waaye ak xikma yàlla defal ko ko lahu ulumun wa asraarun yàlla mayoon na ko balluwaayu xam-xam yi bu ci nekk yàlla sedd ko ci mais yemu ci yàlla may ko xam-xamu lasraar cër moom Souleymane Sall yemul ci loolu waaye yàlla mayoon na ko xikam waaye yàlla mayoon na ko istijaaba mooy lu mu mësa ñaan nangu na loolu nag suñu ko soxlaa xam ak li mu ci def dinañ arrière tuuti ci fan la bàyyi ko mi ngi gënee àddina Fuuta Tooro ci ñëggante minal abawayni al karimayni way juróom bu góor mu ngi tudd sayidi abi muhammad sayidi suleyman sàll mooy way juróom nekkoon na boroom xam-xam mhm. nekkoon na it ku yàlla mayoon ci tabe kaana jawaadan ku yàlla sédde mu tabe la dara du du des ci loxoom waaye yàlla mayoon ko wërsëg waaye Thierno Souleymane Sall mu nekkoon njaboot bu jaar ci loxo yi ginnaaw wuy juram wëliyu yàlla bu mat sëkk muy Thierno Boynadji Niang ca Boynadji Thierno Sidi Ahmed Boynadji ñan ñu ngi koy nuyu di nuyu xalifaam de passage Thierno Cheikh Tijani Niang Boynadji di ko ziyaara muy xalifa ba ak njaboot ga fa nekk yépp nga xam ni fa tabaarakallaahu bu yàggul bërki démb lañu fa jóge luy teraanga mu defal ñu ko moom ak njaboot ga nuyu ci sëriñ Abdul Aziz baax suñu soppee waaye ngir yàlla ak Thierno Mamadou Souleymane Thierno Boy Naaji sàll dafa euh, Thierno Boy Naaji dafa summeeku ci Thierno Mamadou Souleymane sàll te loolu ci biir waxtaan bi euh, dama koy jël benn aaya jàngat ci dundu Thierno Mamadou Souleymane mooy wallazina jaahadu fii na mhm. lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la maa al muhsinin mhm. Cerno Umar Suleymaan dundam yëpp daf ko jox yàlla way juróom moo ni ko yow dama bëgg sa dàll boo ko solee dootoo ko summi nga topp penku rek wut xam-xam wut yàlla mhm. ginnaaw bi ko magam bu ñuy wax Cerno Xaalid Sàll jàngale alquran ba mu am xifz wa tilaawa wa jawwada quraanahu alquraanam rafet ci riwaaya tajwid mu wattu téeri yàlla bi magam boobu ginnaaw bi bi mu dellu see way juróom mu ni ko yow xam-xam rek mooy sa cër ak wuti sa boroom ci la ko dénke nag Ceerno Alfa Ibrahim ak Ceerno Ahmad Boy Naaji Ñaŋ mhm. waaye li yéeme mooy dafay mel ne marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzaqun laa yabxiyaan parce que ñaari nit yàlla yooyu ku ci nekk ëpp na sax pour mu defar nit ndax li leen yàlla defaloon bu dee ci branche xam-xam yi Cerno Alpha Ibrahim li ko yàlla mayoon ci xam-xam ci niveau yi mu amoon ci jàngale ci mboolem branche yi ñu doon jàng ci réew mi di ko jàng fii ba gànnaar jàng na ko ci moom waaye lépp loo xamante ni wàllu tarbiya la ci tariqatul ahmadiya al tijaniya al xanafiya al muhammadiya bii lépp lu ci ndigal lépp loo xam ne danañ ko ci jëfandikoo jële na ko ci loxo sëriñam di nitu yàlla bu mag boobu di Ceerno Ahmad Boy naa ji mu jox ko ndigal jox ko ijaaza itlaax jox ko cër yi mu ko jox ci tariqa bi may ko digal ci lu mu gis ci tariqa bi arzan wa i'taan mu am ndigalu jël am ndigalu joxe yemu ci canoot booy naa ji di ko yewwi ni ko heure boo demee ba gisatuma la dootoo wax nit soxla dootoo demandé dara yow lañuy ñuy demandé yow mu yewwi ko te ci gin te ci te ci ginnaaw loolu dafa nekkoon borom yitte li ko hima mun tasaamat seen mooma sàll amul nit bu ko ëpp yitte li mu def ci ay tukki def ko ci ay futuxaat yoonam wu yéeme bi ci Côte d'Ivoire nga xam ni juróomi at la fa def def fa téeméeri xalwa ak ñaar cent deux xalwa moo tolloog amin te amin nag mooy secret ñaan moo tolloog it ismullahi mubin téeméeri xalwa ak ñaar ku ko toftale def ko bi mu tijjee dafa mat cinq ans fa la jógee def tukkeem yooyu nga xam ni booba nit ñi ñi ngi koy dëgmal waaye mi ngi leen wan ginnaaw di wut yàlla jaar fi mu jaar dem na Maroc dem na Niger Bénin tukkeem bu sore boobu mu tukki ba ni mu wàññee ko ci alquran rek la dund Thierno Mohamed Souleymane jikkoom moo nekkoon alquran mais meloom moo nekkoon tabe ku amoon cër la ci tariqa bi bokkoon na ci nitu yàlla yi nga xam ni boo leen daan wax aajo da ngay egg suuf rek ñu téye sa loxo bu la ñaanalee dina ñaan dina ñaan ba fi mu toog mu xam alaamat bu ko wan ni signe bu ko wan ni ñaan gi nangu na mu roog bàyyi sa loxo te loolu yi mu ci jëfandikoo yëpp kenn mënu ko sax tudd fii tey jëflante na ceeg ñoo xam ni ci réew mi tey ak mag ñoo xam ni fi mu ci jaar ak ñoom ci wàllu ñaan kenn mësul gis loolu ñu ni nag loolu lan la ko doon defee ñu ni ñaar bil ixlaasi wal izni dafa amoon sell bu mat sëkk dafa amoon sell bu mat sëkk mais dafa amoon ndigal bu mat sëkk bu mu jëlee ci ay xalifa cheikh Seydi Ahmed Tidiane ndax sëriñam bi ko yar moo ko toqi ci defaru ak ci niin toogaale xadara yonent bi Cheikh Ahmad Boyna ji ku xam témoignage yi Cheikh Alxaaji Abdul Aziz baax def ci moom di nga xam kenn la woon ci tariqa bi bokkoon na ci ñi daan gis yonent bi bu baax a baax te wëlewu pour ngay gis yonent bi lu bari dafay laaj nga bari kiiraay yoo jéggi xam nga Mouhamadul Bouchiri bi mu gisee yonent bi dégg nga ni mu doon waxee dafa commencé rek bënn bët yi di jooy amin tazakuri jiraanin bisi shalamin mazajta dama an jara min muqlatin bidami am habati riixu min tilqaai kazimatin wa aw madal barqu fi zalma imin idami di ko way noonu di junj bi mu gisee yonent bi li mu ci jëlee waaw fa kayfa tunkiru xubban mu mel ne dafa bëgg a tuumaal boppam naan ko waay nooy seedee ni noo bëgg a weddee ni cofeel moo la jàpp parce que yow yaa ngi jooy ngir cofeel te boppam lay wax Muhammadul Bushiri parce que yonent bi boo ko gisee dootoo bëgg a tàggoo ak moom léegi bi ñu toppee Muhammadul Bushiri fan la nàmpe gis yonent bi dañuy fekk sëriñam Abul Abbas al Mursi moo ko ko yare Abul Abbas al Mursi moom nee na bu ma toogee benn seconde gisumay rasulullahi xakkamtu bi riddati damay jàppee sama bopp ku génn ci lislaam moo tax nittu yàlla yi dañu daan am loolu ci gis yonent bi bokk na ci benn ibnul farid moom mu ni wala tafannuni waasi fiihi bi xusnihi yaf na zamaanu wa fiihi maalam yusafi mu ni temps bi yëpp bu ñu ko doon jël ak waxtu yi émission yi plateau yi plume yi euh, papier yëpp ñuy bind ci yonent bi neen dañuy dem ba mu yàgg temps bi mooy jeex mais lii ci tabeem ak sellam ak excellence bi bi mu amee moom yeneent bi du jeex ndax nitu yàlla yi nag bu ñu demee ba gis yonent bi yàlla dootu dootu delloo seen ñaan fatxullaahil akbar boobu di ko def sëriñam moo ko defal bokkoon na mi na maftu alayhi maftu alayhi la woon bokkoon na min al maxsuusina al mahbubina bil karama dafa amoon cër ci tariqa bi ci wàllu jàngale waaye ak ci wàllu yar surtout ci yar ci xaal dangay ñëw rek nga nuyoo Thierno Souleymane sàll wax la li nga doon def wala mu toog mu ni diw mi ngi ñëw loolu def na ko miraaran plusieurs fois mu ni diw mi ngi ñëw nàngam la bëgg ba mu ñëw waaye loolu loolu moom bëri na ci tariqa Seydi Ahmad Tidiane kon loolu mi ngi ko amee bushra lana machara tijaani inna lana xayril wasilati min baynil wasilaati kon bu ñu yéemee ci Cerno Mamadou Souleymane Sall dañuy wëlbatiku ñu ni Seydi Ahmad Tijaani mooy sëriñam te mësul kafe tariqa bi mësul maslaa tariqa bi ku fonkoon tariqa bi la waaye ku jëloon alquran melowoo ko la dafa meloo woon alquran ci wax xawlan wa fi'lan ci wax ak ci jëf alquran rek la incarné woon mm-hmm. moo tax ku gis tey këram ak njabootam ni ñuy def alquran defe na ceerno sëñ Usmaan dina ci ñëw eh, wala ceerno li nga xam ni rek ñi ngi koy liggéey ak mu jot ci kaamil mm-hmm. bu ziyaar bi ñëwee ak bis bi ñu jëm li ñu ciy liggéey ci alquran kenn xamul nu mu toll mais li ñu ci liggéey ci turu yàlla kenn xamul nu mu toll ndax góor gi ni mu doon liggéeyee course koo xam ne bi nga amee dix-huit ans la wax ni dix-huit ans moom bi mu ko amee ne na jombati na mu tëdd ci lal Thierno Mamadou Souleymane bi mu amee dix-huit ans la bàyyi nelaw mu ni du tëddati ci lal ndax li muy wut ci yàlla kon xanaa dégg na waxu Sayyidi Ahmad Tijani ba Cheikh Tijani ni woon man talabal ula sahiral yàlla kuy wut lu kawe loo xam ne ñépp a ko bëgg a jot te mu kawe cheikh nee na boo koy wut dangay ngay foog guddi yi rek dangay ngay mhm. nekk ci sa yitte mhm. waaye kon moom teel na sànni mbàjj yu sedd yi ak climatiseurs yi mu veillé ay guddeem te boobu mi ngi jublu boroomam mi ngi wut boroomam mi ngi bëgg a nekk xaritu boroomam kon boobu yàlla na mën na ci moom yi woowu yàlla defal ko cër ci ixlaas ci sellal te yent yàlla ibrahima ba muy ñaan xaalu min xaal laa yanaalu hadiya zalimin gis nga am na cër boo xamante ni kenn du ko jox ku sellalul mhm. melo la woon ci sell al ilmu nuurun wa nuuru laa yuta li cër Mawud Souleymane nekkoon ku sell ñu respecté ko ñu wekk ko ci diggante Fuuta ak Ndakaaru ak ci réew mi ak ci sous-région bi ak ci gouvernement yi fi jaaroon waaye léppam nekkoon alquran waaye Moustapha léppam nekkoon salaatul fatiha nekkoon Sayyidi Ahmad Tijaan dañuy desene si yow ñuy dikkaat rapidement si yow digganteem ak mag ñu baax yi nga xam ne ñoom la daan àndal ndax euh, day xool dañuy xool ni góor gi daanaka amaana ñu bëri ràññewuñ ko mhm. waaye yow di ñu mën a leeral digganteem ak yenn mag ñi nga xam ne ñoom la daan àndal ñuy ñëw si Thierno mu am lu ñu wax Euh, ndax xam naa ni c'est la première fois tamit ñu bëgg koo rendre hommage. Mhm. tey loolu occasion la si ñi nga xam ne ñoom ñooy ay taalibeem digganteem ak mag ñu baax ñi mu daan àndal. waaw euh, digganteem ak mag ñu baax ñi yaatu na ci réew mi. Mhm. ndax ci wàllu yàlla wax naa ne léegi ni la Cheikh Ahmed Boynaji Niang mooy sëriñam. Mhm. bi ko yéege ci xaala bi mu doon dund. waaye Thierno. jibi ba mbambiloor nga xam ni Ceerno jibi mbambiloor moom àdduna bi xam nañu li mu liggéey ci tarixa bi ak ni mu meloon uh-huh. nekkoon kenn ak góor gi Ceerno Mor Suleymaan uh-huh. nekkoon wëllëreem mais Ceerno Saïdu Nuuru Taal bi nga xam ni kenn la ci kër Cheikh na Omar bin Saïd al di kenn ci kër Sayyid al Xaaji Malik uh-huh. ndax Ceerno Saïdu Nuuru Nuuru mais yemul ci loolu Thierno du Nourou damay wax ni buñ mënee wax ni mooy secrétaire particulier bu Cheikh Al Hadj Malick confiance bi Cheikh Al Hadj amoon ci Thierno du Nourou jéggi na kenn mënu ko natt. Uh-huh. Thierno Seydou Nourou ànd ak Seydi Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu ndax ci bi sëñ Babacar di construire zawiya bu ndar Thierno du Nourou la àndal ñu liggéey ko ci juróom-ñeenti weer waaye yemu ci. digganteem ak rakkam Cheikh El Hadji Mansour. way juru xalifa bi yàlla na yàlla yàggal ko fi sëñ Babacar Si Mouhamadil Mansour. Cheikh El Hadji Mansour ak Thierno Seydou seen diggante kenn xamul li ci nekkoon ci riqatu shawq alaaqa bu ak cofeel bu sell. nag maam Abdel Aziz Dabbaax nekkoon xaritam. seen diggante ca Aynu Maadi ca Pomba. Jaksaaw digganteem ak Cheikh El Hadji Thierno Seydou Nourou Tall nga xam ni doomi Cheikh Al Hadj Abdou yi Thierno Seydou Nourou moo daan ci def daan ci dindi ci biir këram yàlla séddee ko cëru Cheikh Al Hadj Malick te Cheikhu Umar di maamam. waaye Thierno Seydou Nourou nekkoon wëllëre góor gi nekk way ci moom waaye nekk soppeem Thierno Seydou Nourou ñëw na fii ci kër gi nekk wëllëre góor gi. jëflanteeg moom moom itam ñaanal ko ci wàllu yàlla jàppalanteeg gër gi ci wàllu yàlla ndax seen diggante ñaari wayjur wayjuru Cerno Muhammad Suleymaan moo nekkoon xaritu Cerno Suhaydu Nuuru jëflanteem noonu la demee ci réew mi yépp mm-hmm. yàlla mayoon ko ba ci wàllu gouvernement yi fi nekkoon mm-hmm. laata bii bu Abdou Diouf ak ñi fi nekkoon ñoom ñépp xamoon kan mooy góor gi daan ko fekk fii doy na ci kéemaan rek moom moo tax tali boobu ci mbedd mi ginnaaw école Madiaye bi jëm këram euh, moom moo taxoon ñu def ko fa ngir yàlla ak fonkoon ko ak xam ni njariñ la ci peuple bi waaye njariñ la ci xeet bi yépp loolu la ko yàlla defaloon moo tax Thierno Mamadou Souleymane njariñ la woon waaye mi xakku qawmihi la woon moo nekkoon maasuulul qawmi mm-hmm. lem la woon ci ñi mu bokkal waaye moo nekkoon montagne bi nga xam ni mooy protéger ñi tiit ñi jàq nit daan na ñëw am problème ba defe ni tey tey tey dundam jaxasoo boo dikkee nga wax mu ni toogal ñu woo yàlla moom loolu la daan wax mm-hmm. boo sa problème lu mu sérieux naan toogal ñu woo yàlla mm-hmm. waaye nag yàlla suturaal na ko mosul wax nit toogal ñu woo yàlla lu dul fi mu toog bala ngaa jóg ngay reetaan sa aajo yépp faju loolu nag kon hunaalikal faydu yati min tadafuqihi loolu nag faydu la woon bu ko Seydi Ahmad Tijaani séq sédd ci balluwaayam yu leer yooyu mm-hmm. moo tax Thierno Mamadou Souleymane euh, damay wax ni dafa dund ama man aata wa taqaa wa saddaqa bil xusna fa sannu yasiru lil yusra mm-hmm. joxe na ragal na yàlla dëggal na fay na njëkk mm-hmm. te yàlla nee na ñi joxe ngir man te ragal ma itam intérieurement waaye wa saddaqa bil xusna ñooñu kat fasannu yassiruhu lil yusra boo koy xool ci aaya boobu def la koy nirool waaw yàlla mayoon ko nag muy nit ku dëggu noo mën a toll boo jàkkaarloog moom mu waxante ak yow farata parce nitu yàlla bu ñu ko xasee ubbi damay damay gisee boroomam ci gisu muaayana ak muraqaba ak ca ca toll ak mushahada ci digganteem ak yàlla bu gaynde taxawee ci kanamam sax tuuti moo tax lu mës tiital nit rek bu agsee moom daf koy xool bu ca gisul yàlla rek mu tuuti waaye nag noonu la nekk kaane layinan kariman ku nooy la woon te jàppandi ci miskin yi uh-huh. nekkoon nañu tàppuwaayu miskin yi uh-huh. ku soxla ku ne daan nga ñëw ci moom daan na yor ay kër yoo xamante ni bi ñu demee ba gisatuñu ko ñooñu ñoo ñëw wax fi mu leen féete woon ci wàllu tabe ak ci wàllu finance ak ci wàllu mbaax uh-huh. loolu kon jikko góor gi mooy jikko yi yonti yàlla Muhammad jàngale woon jikko yi nga xam ni moom la lislaam bëgg waaye jikko yi nga xam ni mooy yéwénal jikko mooy yéwénal dund. Mhm. Euh, sëñ Moustapha ci li ñu mën a euh, tënk rek ci góor gi. jërëjëf euh, oustaz li nga leeral si góor gi am na solo ñu ñëw dinañ ñëw rapidement si Thierno nga xam ni moom mooy daa doomam. mu am lu ñu leeral moom it si bis bi nga xam ni moom la ñuy waaj muy bis boo xam ni su journée culturelle la boo xam ne dañ koo jagleel góor gi cheikh bi ngeen ngeen bëggal soppe yi ñu doog a ñëwaat si si Thierno. وتذري بنسبة لأصداف بحر فار وهو لوامع شيخنا التيجاني قد انقطعت للأرض عنك المجامع وباللغف والأضرار ها أنت جامع ألا كثروا ذكر الفريضة ترحموا فتكثيرها فيه مفاض ومعنم بتكثيرها خوض المطالب كلها من الدين والدنيا رضا الله الأكرم ألا مرة منها من النار فدية وموت على الإسلام في ذاك يرسم ألا مرة منها من النار فتنة وموت على الإسلام في ذاك يرسم شيخ سيد الحاج مالك نانا ولو آمن الإخوان ما قال شيخنا لداموا عليها والإمام مسلم شيخنا التجاني وكم طالب من شيخنا غير لازم فخض عليها صدق الشيخ تكرم لسيدنا البكري لكن نشرها bi sayyidina al-maktuumi wa sirru yu'lamu wa haajara tijaani ba'du talaadumin fa xawwalahu al-haadi ilayha fa yafhamu wa qad jaa'anaa wa aatul buyuuta fasaddiqan min abwaabihaa jalla al-kiraamu al-munaxximu شيخنا التيجاني فهل بدا برق صار من سنياتي أم لمغ برق بدا من الصنيات فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما حرج ملام فندعو الله مولانا مماتا والله طريقته فما حرج ملام حلفنا فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما أرجو الملام حلفنا فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما حرج ملام حلفنا مريد القرب شيخي لا يضام ينال به بغاية ما يرام ألفا فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما ورجوم خليفنا فبيضة عطباه أخي بألف فما للفرق في بيع الكلام خليفنا فندعو الله مولانا ممات طريقته فما حرج ملام خليفنا إذا كان الكريم يجود فضلا فكيف يقاس للفضل المقام حلفني فندعو الله مولانا ممات تاريخته فما حرج ملام قد فنى لنا عجب الأقمى والله لنا عجب بهذا القطب حقا فأمر الله يعجبه الأنام غالبا فندعو الله مولانا مماتا والله فندعو الله مولانا فما حرج ملا خلفنا له فيد يفيد عميم كل فوالله له فيد يفيد عميم كل فما بقي الكرام ولا لأمان خلفنا فندعو والله فندعو الله مولانا ممات طريقته فما أرجو ملا خليفنا فمنكرها له خطر عظيم والله فمنكرها له خطر عظيم الإنكار أسرار طغام حلفني فندعو الله مولانا مماتا والله فندعو الله مولانا كوني كشمس في سمائي على ذوال يراها لا صحاب ولا البرم جنان كشمس في سمائي على ذوالي ولا يراها الله صحاب ولا الحمام ربنا أتانا بالجواهر عاليات ووالله يا واقيت فأكرمه يبصر نار جنان كشمس في سماء على ذوالي ووالله يرى الله صحاب ولا العمام خلفنا جعلت رتبا رتبا رتبا وحسنا أي وجه والله بغير لا تناسبه يبرم نار جنان ألت رتبا رتبا رتبا وحسنا أي وجعي ووالله بغير الله تناسب خلق طابا خلفنا فلا ذا زالت فضائل من إلهي ووالله تعول لديه أوجاع المرم دار جنان كشمس في سماء على ذوالي يرى الله صحاب ولو ربنا ديننا لنا قصد زيارته ولولا ما مقادير التقى ربنا يبرم بار جنان كشمس في سماء على ذوالي ووالله يرى الله صحاب ولا الغمام خلفنا فمن أين الوصال إلى ضريح ووالله فمن أين الخلول طراخ يا مو فندعو الله مولانا مماتا ووالله طريقته فما حرج ملا خليفة إذا دارت أخي الأقدار فينا والله فنعذى فيه ظورا خير دار جنان فندعو الله مولانا مماتا وولاي طريقته فما حرج ملا خلفنا رضا الرحمن مولانا ضواما والله على قمر يضيء به عبرنا رجنان فندعو الله مولانا مماتا وولاي طريقته فما حرج ملا خلفنا له ورد يناقع من صدانا والله فما فينا صد النعم الإمام ردنانا كشمس في سماء على ذوالي ووالله يرى الله صحاب ولا العمام خلفنا صلاة الله تعالى ينال كل حين ووالله على المختار حقا وسلام لبدا صلاة الله تعالى كل حين كل حين على المختار حقا وسلام خلفنا كذا آل وأصحاب سورة سورة وأقمار وفرسان كرام لبنك ضآل وأصحاب سرات وأقمار وفرسان كرام Cheikh jërëjëf Cheikh Ahmed macha allah baat bi yàlla na gën a wér ñu ngi siyaare suñu waaj xaaji Mor Gueye sopp na bi di suñu xarit di suñu kilifa di baron de social moo waa këram gi yëpp waa fondation Sopp Nabi ñu ngi leen di siyaare ñu nekk foofu sa cees di liggéey liggéey bu am solo si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Hadji Mor waa këram gi yëpp ku si mel ni Mor de ma Babacar ñu ngi koy siyaare suñu yaay Kanku Diagne ñu ngi koy siyaare bu baax a baax ak fondation Sopp Nabi gi yëpp ñu ngi leen di siyaare te di leen jox sa wàccuwaay Thierno dañuy ñëw si yow rapidement lan moo a journée culturelle Hadji bi xaj Moustapha ma ngi leen nuyu bu baax di la jaar di la ndokkeel di nuyu suñu xarit suñu mag suñu naaw Ousmane Keita suñu doyee Amadou Fall ci jaani ñu ngi nuyu bu baax di nuyu Oustaz Souleymane bu baax di nuyu sama mag yi ma bàyyi kër ga suñu xarit bu Thierno Alpha Ibrahim di ko jox wàccuwaayam bu baax di nuyu Thierno Ahmed Boyna di nuyu Souleymane ak waa kër yëpp waa soppe institut islamique Thierno Mouhamed Souleymane Sall jàppale ci liggéey bi ñu gën a oyof te parents d'élèves sant yàlla la mm-hmm. li waral bés bi suñu waajur daf ñu liggéeyal loo xamante ne sonn dem wuti ko fu ne foo mënta doon foo mënta doon ci at bi mu àndi ko ba mu jegeñ daf ma doon wax ni eh, eh, seraal yi ma la ko naam mu ne ma lépp lu doon gaañ lépp lu doon lore fexe ba ñàkk ko def ko sama bopp pour yéen yéen ngeen nekk ci noflaay ndax moom fu ñu jaar dafa bari mhm. ki doon wax ñuy tey amoon nañ fi cër bu mag suñu fa suñu fu ñu fa yóbbuwoon dañuy nekk ay buur mhm. kon duñu xam àdduna mhm. mu bëggoon ñu forcer alquran yu karim moo tax mu yar ñu ci biir kër gi dañuy jàngal alquran tàggat ñu ci def ñu ci jikko yu rafet yëpp lépp lu nit ku baax di defal ay waaju ay doomam mu defal ñu ko ñun tamit war nañ koo delloo njukkal mm-hmm. as tuuti bi ñu xam ci moom ak lim ñu yare mm-hmm. mu dem ba jóge fi ndax la bi muy bu muy bu muy bu muy dem da fekk ñu nekk xale lool mu amoon ñeewante si ñun ñu dem ba xàmmee xam ne ñun or lañ la ñu am mooy suñu waajur radiyallaahu anhu ñu ne nag ñun danañ ko delloo njukkal lottu nañ ci nag ñu woo ñëpp pour ñu sant la ñu yàlla bis bisu anniversaire am fukkeelu atam ñu yóbbu ko Sorano bu ci njëkk mooy li mu bëggoon ci xolam muy alquraanul karim nekkoon dundam jaxasoog deretam nekkoon léppam moom mu yar ñu ci di ñu fayal fukki junni ak juróom ci kër gi ñuy jàngal Alquran mu def ci coonu bu nekk pour ñu partu Alquran pour ñu mën a nekk leneen ëllëg ci loolu rek lañ ko mën a delloo njukkal mooy jàngal ko Alquran kaamil yu bari jàng nañ ci lu toll ci 290 bëgg nañ ko mottali ba 2 ba 310 bis baa ñu àggali 13 yi mu nekk 313. maanaam si si bis bi di ngeen si jàng diggante bis bi ak léegi di ngeen si jàng 313 kaamil. incha allah am nañ am nañ am nañu 200 euh, 290 euh, yi daal tuuti moo ci manqué non astafurlah am nañ 290 dañu bëgg a dem ba am 310 taxaw bu bis baa ñu def ñetti kaamil mu mat am nañ mille salaatu ala nabi dix-huit dix-huit millions astaghfirullah dix-huit millions salaatu ala nabi dix-huit millions salaatu ala nabi ndax dañu am ay ay groupe yu yu ñuy defee ak daara ji tamit day def dañ koy noté sëriñ bi bu ñu àndee Fuuta fan yi passé dama ko ko doon wax xam naa ni dafay xaw a li tuuti ful si boobu ma génnee woon ko kay bi ni ma koy noté ak ni ma defee lépp ba nii nii nii sama téléphone bu fayul tey lañ war a ñaan salaatu ala nabi yi ñu ma envoyé yëpp Allemagne am na ñu nekk def salaatu ala di ma yónnee France am na ñu fa nekk Euh, Sénégal fii partout ci gox ñu fasanti ñoo xamante ni sax bokkuñ ci groupe bi dama leen si impliqué ba nga xam bu alxamis jotee bu ñu ma envoyé lu ñu am jàmm waaw yooyu noonu yëpp ak bas bala yeeg euh, euh, latif xas bala kursi yu bu nekk am nañ ci dog bu mat waaw yooyu noonu yëpp ñu bëgg ko koo ñu ñu bëgg koo delloo njukkal man chaque jour damay wax ni tant que aw ma junni ñu ma jàngal ba ñu mokkal alquran ma def ko hadiya yonent bi sallallahu alayhi yool bi mu yónnee ko defaguma dara mm-hmm. lii nag dafa bokk ci liñ koy santalee yàlla ndax daf koo mm-hmm. ko bëggoon nàmpal nàmpatal ñu mm-hmm. naa sëriñ bi dana ci ñëw bokk ci ay cofeel moom dana ci ñëw ni fi mu jaar ak mag moom dana ci ñëw insha ak ngeen ci rendre hommage programme xëyee suba dañuy xewlu bu ñu paree ñu wàcce ay alxuraan séddale dog mhm. suñu rakk mu Mountakha sàll moom moo koy jiite mhm. ak ñi mu ànd ak daara ji mhm. ñu bernde ba pare ñu noppaleeku waxtaan tuuti ci góor gi ak ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi ak si sëriñam ñu demee ba ba ba añ suñu añee nag bu boobaa dañuy préparer pour lii am na lu ñu doon demander maire nag ñoo ngi doon procédure ba kii dogaloon na pour pour quartier bi ñu tuddee ko Thierno Mouhamed Souleymane Sall ndax yàlla na ci. Mhm. ndax ku moom mu tëdd si barab bi di ko aar ki nga xamante ni bu mu amee 18 ans la bàyyi nelaw guddi 1980 bu mu ñibbisee ba ni mu wujjee boromam 2013 génnul foofu waaw daf ñu ko doon wax lu bari nee na nag li ma koy wax li mu leen di wax du ndamu mais damay sant yàlla wa maa bi ni'mati rabbika fa haddis mhm. waaw. mu ne ma siraaju musumaatee kurus nelaw. Cerno Alfa Ibrahim radiallahu anhu moo wax ne sama papa euh, lu muy ubbee maqsada bi muy def mhm. muy ubbee sëriñ bu ko liggéey dangay ngay faatu Cerno Alfa Ibrahim Cerno Alfa Ibrahim boobu 92 daf ko woo téléphone mooy bi mu ñëwee fii Padoua mhm. ne ko dem leen ngeen ma Cerno Mouhamed Souleymane Sall te cer sama bu déggoon ñëw rek day dem mm-hmm. bu déggoon ñëw rek day dem bi mu ko wooloo sama papa nekkoon na ma may pareegu ma mu woolu ko ba muy ñett yoon ne ko demal ne ko su paree na ñëw su pareewul na ñëw tam papa nekk foofu di yéexandu mu def délégation bu mag ñëw kër ga ñëpp toog mu seede seedeem yu rëy yooyu ne ko dama doon wax ne bis ci ni tey si lépp mat na sëriñ day topp taalibe waaye yow tey moom fi ñuy jaar ñu ñaar amatul benn xaq ba bu ma ba mu lay topp sam papa jaar na foofu ci an Alpha Ibrahim radiallahu anhu ñan ñan koy rendre hommage dégguma ñan si ñenn ñan nga si nañ si ah, bokk na si papa Madiang mhm. bokk na si Cheikh Ahmad Boynaaji bi ko mhm. sëriñam na si Alpha Ibrahim mhm. bokk na si monsieur le maire euh, Doudou bokk na ci Baba Wade mm-hmm. bokk na ci silay eh, silay boola maamam mm-hmm. bokk na ci taan jibi bokk bari nañ daal mm-hmm. bu ñu leen doon tudd fii fii lañuy des bokk na ci Papa Modou Gueye bokk na ci mu Papa Mouma Gueye ñoom ñëpp ay dañuy ay ay ay wëllër góor gi lañu woon ñoom ñoo dundoon foofu dundin bu rafet ñu bokk na ci eh, eh, imaam imaam Mouhamadou Lamine saar bokk na suñu maam Ngañ Ngañ Diop euh, bu ñu leen doon tudd du jeex waaw tabaarakallaahu bokk na ci Adiya Jaxate suñu baay bu baax boobu lengool foofu waaw euh, bokk na ci suñu yaay xawa baax bi gaañu yàggul nekkoon wëlleer sama waajur am papa da doon wax ni moom kenn la ci woon ci ay waajuram moom tamit kenn la bokk na ci suñu cousine bu gaañu fan yi yàggul ah soxna Fatima waaw eh, bari nañu daal su ñu leen doon lim du jeex waaw du jeex léegi nag dama lay dama lay ñaan leen donte première édition la ngeen koy def eh, mu xam naa dina dina wéy mm-hmm. luy wéy lay doon dañ leen koy ñaan incha allah rabbi te ngeen si ñëw ànd ak 7TV muy waa kër gi eh, ñu liggéey ak yéen si commercial bi ànd si ak waneel leen ko direct comme ni ngeen ko bëggee comme ni ñu koy defee ak yenn këru kër diine yëpp ndax waa kër sang barxaam dañuy ñëw fii ñuy def ak ñoom direct loolu nag après incha allah rabbi euh, balaa laataa émission bi di jeex euh, dañuy yéeg dañuy mën nañoo wàcc suuf ngeen su leen neexee ngeen finaliser <laughs> wa ilaa ngeen woo ñu téléphone rek <laughs> ñu booye leen ak kumba euh, Pape Maguette mi ngi may wax xam naa dafa may xamal ni temps bi des des xam naa dag may may une minute rek cheikh bi leeral ñu si digganteem ak alxuraanu karim ñu doog a ñëw ñu tëj tabarakallahu damay ni Thierno Mamadou Souleymane yal na yàlla tëbb ñu ci leeram taas ñu ci ay barkeem ni ko xaaj siraaj yu waxe léppam alquran la li ma ci nettali tuuti mooy dafa jël njabootam yóbbu woon leen kokki ca kokki ga nga xam ca njàmbur ca góor gi maxtaar nu mbe ak sëtam yooyu looyeen yooyu amee ko ñuy jàng waaye bëccëg bu jot añ ba ñuy xéewloo ca kokki ci këram la koy toggeet ñu teg ko ci oto yóbbu ko kokki mhm. maanaam ngay xool añ bu ñuy toggee benn tali di ko yóbbu kokki kulla yow min ngir sa njaboot nekk fa ñu def ko quatre ans yoo xamante ni loolu dakkul mhm. kon alquran moo ko toll foofu am na benn jamono benn feebaru test am choléra la sax euh, mu xaw yaatu dugg ci daara ji ah ñu commencé rek gaare oto yi bus yi ah, secteur bu ne ak région bu ne ña jëm yéeg ñu woo seen ay papa woo seen i kilifa mhm. ni leen feebar dafa yaatu ci dëkk bi te xaw na dugg ci daara ji mhm. ñu bëgg ku ne rek teewaat doomam ba jamono neex kilifa yu bari njaboot ku ne xam na kokki bi ñu bëggee taal oto yi ak ñoom worma bi ñu joxoon Thierno Mamadou ñu jël doomam yi mu fa am di leen waajloo ñu takk seeni valis ñu woo góor gi ni ko ñoom Thierno ñu ngi ñëw ndax feebar bi propagé wu ci daara ji mu ni lan la ñu ni ko choléra bi moo fi dugg mu ni bu ñu ñëw de toog leen ma woo yàlla noonu mu ko daan waxee keroog mu woo sëriñ bi am lu mu ko wax ni ko na ko def ci bërigo yi ni ko mu ngi am moom lu mu toog liggéey ko fi mu liggéey mbooleem ñu feebar bi jàppoon ba ñu yóbbu leen hôpital régional bu Louga ak li wër foofu commune bi yëpp. Mhm. ñëpp ñoo wérandoo. feebar bi jeex takk ci daara yi doomu benn kilifa demut. macha allah sëriñ bi bëgg ci loolu. ni comme tawfiix bi mu ngi ko ame ci Thierno Moule Souleymane ci loxoom la ko yàlla jaarale kon xaaral mu teggil doomam yi coono ñoom dootuñu taxan dootuñu dem tool mu dégg ko woote waat téléphone mu ne ko bu dee kër bu nees kay sama kër moo dàq foofu nañu def li ñëpp di def pour ñu am barke alquran damay wax ni loolu euh, lu ndaw la rek loo xam ni doon na wone ni moom alquran mooy moom la xaroo moom la bëgg Euh, léppam alquran la mhm. te loolu xam naa waxtu yi moo ñu ko dul may mhm. waaye bu ñu demoon ba ci biir mhm. di nga xam euh, li mu ci wane ci wàllu kéemaan ak bi ñu ñibbisee mu taf taftiche inspecté leen xool seen niveau ñoom ñëpp ba tey koo ca dem allahuma la aduru euh, damay wax ni hada shiblu min zakal asad gaynde gile gu ndaw ma nga bàyyi ko ca gaynde googale ah, yàlla bu suñu làmmiñ lor moom itam ma nga bàyyi ca kër ga ay kilifaam ñoom ñëpp seen liggéey yëpp mooy Sayyidi Ahmad Tijaani seen liggéey yëpp mooy yëkkati liwaa u tariqa bi seen liggéey yëpp mooy tasaare alquran ak jikko yonent bi xaaj Moustapha nga baal ñu jërëjëf oustaz euh, Pa Maguette da nga leen may ñu tàggatoo rek ma tëj plateau bi euh, Thierno looy tàggatoo ak ñu ngi ah, mhm. nga may ma rek ma sant ak gërëm waaw moo tax may la looy tàggatoo <laughs> d'accord maa ngi woo maa ngi woo suñu monsieur le maire mhm. la commune de Biscuiterie Mouhamed Djibril Wade ngay mhm. wax moom bés bi bésam la waaw bés bi commune de Biscuiterie ñoo ko moom. Mm-hmm. waaw commune de yi ñoo ko moom. Mm-hmm. maa ngi ko ci woo bu baax a baax di ci woo suñu yaay Hadja Halimatu Diop. Mm-hmm. suñu yaay Aïssatou Diop. di ci woo sama waaju baax ji Maxtaar Silla promoteur bu mag bi di woo soxnaam tamit. Euh, Aïda Saw maa ngi woo euh, sama sama waa ji Amad Tidiane Wade doomu Baba Wade. waaw moom papaam dañ koy boole suñuy rend hommage di woo famille Sall leen yëpp. Mm-hmm. ñoom Babel Sall ñoom Malick ñoom ñëpp maa ngi woo Aïssata Sall ma seen mag. Mm-hmm. di woo Kaja. Mm-hmm. bàyyiwuma kenn. maa ngi woo ñoom Fara suñu waa koñ bi foofu. di woo euh, association soppe euh, association islamique. ñoom ñëpp maa leen woo waa Daara ji. di tamit euh, fédération des Daara. di woo Hadja moom moo jiite yaayu Daara yi. di Euh, association yu nekk foofu yëpp bàyyiwuñ kenn daayira yéeg association yeeg olama yeeg euh, ñëpp ñoo leen di woo imaam yeeg ku ñu tudd rek xëy na temps bi moo xoj mais bëggoon nañ jaar ku nekk si turam. da ngay woowaa tv bu baax di leen xaar ci lii tamit tabaarakallaahu di woowaa HLM di woowaa Grand Dakar di woo surtout waa Fouta soppay Thierno Siraji Sall yi nekk foofu. Hmm. di ci jiital présidente bi. Euh, euh, mairam Yaxya Sall maa ko ci woo bu baax ci bés bi di woo sama goro moom may jàppale bu baax wax dëgg yàlla mhm. di woo suñu meeru dëkk maa ngi koy woo ci bés bi bu baax a baax di woo seen président lii bi tamit euh, sama goro yi waa Caaro yi sama goro yi nekk foofu maa ngi leen di woo waa Géejuwaay waa Pikine yaa ngi woo ñëpp déet waa Pikine waa xaaral rek waa HLM tamit maa bàyyiwuma kenn suñu sëriñ yi Cerno Cerno Euh, Thierno Abdoulaye Sall. Mm-hmm. sama sëriñ maa ngi ko ci woo. Mm-hmm. di ko wax bés bi bésam la. Mm-hmm. di ci woo Thierno Chérif Dieng. di ci woo euh, Oustaz Omar Ndiaye. di ko ci woo bu baax di ko wax bés bi bésam la. jërëjëf di woo Maam Taha ak fédération des Daara bàyyiwuma kenn daal. jërëjëf Thierno Siraj di sama xarit sama soppe. sama féetewoo Maam Seck. Thierno Ahmad Boy Naaji sama mag. bés bi moom moo ko moom bokk ko kenn ñu ko ci woo bu baax a baax a baax a baax yàlla waaw jërëjëf oustaz Siraj Sall euh, ñu mu ne le 25 novembre lañ ko amal foofu sa Sorano muy journée boo xam ni wax dëgg yàlla woo nañ si jullitu yàlla yëpp ñoom ñooy tëj euh, bis bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, si réseau bi ñu ngi lay jaajëfal encore une fois si complicité bi ñu am xëy na débordé nañ si temps bi lu bëree bëri ñu ngi koy tuubal bu baax di ko tuubal waa réseau bi yëpp Pape mi si son bi ñi ngi koy siyaare bu baax te di ko jox wàccu waayam di siyaare misel mi nga xam ne moo nekk si décoration télé bi ñu ngi koy siyaare bu baax baax li ma la wax sànq rek laa waxaat da ñëw ànd ak waa 7TV ñu liggéey bis bi kumba mi ngi ñuy suivre si euh, si si bureau mi ngi ñëw ñu def ak yow direct incha allah rabi te xam naa ne soo liggéey ak ñun euh, doo ko rëcc bu soobee yàlla ñi ngi jaajëfal encore une fois képp koo xam ne mi ngi woon safoon di seetaan 7TV di euh, maire Thiaroye ji dakaw muy Mamadou Gueye nga xam ne mooy directeur impôt domaine di suñu xarit di suñu ndijaay di suñu kilifa nga xam ni yére bii ma sol tey euh, magam moom ma ko jox muy Moustapha Guèye ñu koy siyaare bu baax mook madame Guèye Ndeye Marème ñoom Mamadou Xoussa Ahmed Thiam ñoom Ahmed Gueye suñu limee dañuy juum euh, directeur ñu ngi lay siyaare bu baax te di la jox sa wàccuwaay di siyaare képp koo xam ni mooy safoo 7TV euh, ñu jox leen Pa Maguette ñoom ñu tëj ñu yëkkati jotaay bi tëj leen ak way bu neex macha allah ci ñi nga xamante ni tabarakallahu moom la Thierno Lim léegi-léegi muy ñi nga xam dañ leen di wow muy mbooleem daayira bu fa nekk mm-hmm. ndax daayira yi nekk boor boobu waagu ñaay jàpp HLM Grand Dakar Castor macha allah ñoo ñu wër tabaarakallahu di woo it groupe Katmiya bi mm-hmm. waa Katmiya ak ñi nga xamante ni ñoo nekk biir HLM eh, Abdoul Aziz Seck jiite leen tabaarakallahu ñoo ñëpp di woo Ahmed Fall Atijani macha allah di ko woo ci bis bi di ko woo bu baax a baax macha allah oustaz Masila Kane macha allah fàttewuñ ko ñoom ñëpp rek ñu ñëw rek waaye bu ñu ñëwee yàlla nangu lépp ci barke. أسط رعوناك كما أفيض مع عبنا يا الله يا ربي زحزحني عن النار أسط رعوناك كما أفيض مع عبنا يا الله يا ربي وزحني عن النار ووالدي وأشياعي وشيعتنا أحبتي وضأوي الإسلام يا باري وطنا أخبتي وضوي الإسلام يا يا باري أذكى صلاة صلاة وتسليم تسليم على خمر من نوره نيل ما نلنا من أنواره man lii ma bëgg a way rekaan bi moo jugati way ko war na la bindaat fi way fi sunu sang bi kon de bàyyi xam naa sax du way